Euh, on n'est pas encore sorti de l'auberge pour euh, am yenn. en tout contrat bi novembre la lay jeex on verra weyten si ndax euh, nguur gi dina am poignu renégocier ces contrats la wala tout bonnement rompre ko pour xool naka la ñuy defee ak ñeneen ñi mais Pa Assane tey ji ban solution lañu ñu mën a am Euh, parce que ñi ngi wax ci affaire li nga xamante ne moo di ne fixé nañu prix yi naam mais commercant yi également jëfee ko ndax ñoom dañuy jàpp ne ñoom ñoom moom seen cëggalu guy te ñun Sénégal également amuñu culture dénonciation loolu nañ ko wax ça va pas faciliter la tâche tey jii ci li nga xamante ne moo di bés bi parce qu'on l'a toujours vécu waaw euh, bu fekkee ne da nga dëkk ci koñ bi te boutiquier bi moo laa lebal waaw xoolee chaque jour moo lay jox mhm. nga boole ko dina day jafe parce que yow xam nga ne revenu bi new fi mhm. le Sénégal vie un souci de pouvoir d'achat de production et de consommation ñun dañuy consommer te amuñu li nga xam ne moo ñu permettre ñu consommer te amuñu xaalis c'est très difficile situation bu compliquée la mhm. yaa ngi wax euh, ku ñu war a perfuser wala ku feebar ku wayadi mais mais ku bopp ku bopp bi dem la bu doon nit Sénégal dañ naan bopp bi dafa dem léegi nag foog ñu indiwaat ko dafa aw dafa am gis gis nga ni ñuy dundee nii qu'est-ce que nos états font mm-hmm. parce que moi je loue cette cette cette euh, réduction de prix wax dëgg fa yàlla ci 60 jours ak nangam cinq jours defe naa 70 jours yi matagul su ma jumba mm-hmm. c'est excellent après su ma delloo ginnaaw ma ne euh, bi fi Ablaye Wade di jóge en 2012 defe naa ceeb Pape Sané mu ngi woon ci 360. donc moins de hmm. cent francs. 340. 340 waaw suukar mu ngi woon ci. 500 500 400 400 500. 500 waaw ñaari suukar la woon. voilà voilà cristallisé bi ak. voilà 400 500. exact donc hmm. là là nguur bi fi nekkoon yokk ko de façon excessive pourtant wàññi la tàmbale. d'où le mérite c'est-à-dire je le dis honnêtement. Mhm. d'où le mérite de ce qui maintenant c'est loin super méga loin de nous satisfaire mmh. ça veut dire comment faire de sorte que monsieur Gassama nga nga jéggi paawu effort boobu pour am paa buy tax nit ñi ne ah saa yi ñi ñi ñi nañuy góorgóorlu ah mhm. dafa am loo xam ne faw ñu nangu ko mooy lan sànq kilifa bi wax na ko junj na ko sax li xew si biti tey ñun suñu dëkk yi dañu nekk dëkk yoo xam ne dañoo subir. on dépend. dañu dépendre les États-Unis oui. ils, ils ils gèrent le monde ak seen dollar bi nga xam ni ñu ngi am souci États-Unis seen problème bi gën a mag ci àdduna bi jamono bi les gens pensent que c'est la Chine les gens pensent que c'est l'Inde les gens pensent que c'est c'est on ne sait qui la Russie. Mm-hmm. du ñooñu ñëpp. problème wu Amérique ak occidentaux yi bi gën a mag ci àdduna bi c'est l'alliance des États du Sahel mooy seen problème bi gën a mag parce que eux ils savent que bis bu ñii réussir seen influence ba l'Afrique subsaharienne fippu libre di tabaxal boppam te dootuñu lepp on ne foutu ñoom noonu la ñuy xalaatee maintenant ñun il faut ñu nekk ci niveau de réflexion boobu pour xam ne que mhm. li ñu bëgg a def ñun lii Bassirou Diomaye Diakhar fay le président de la République bëgg a def ak le premier ministre Ousmane Sonko ak l'ensemble du gouvernement li ñu bëgg a réussir foog ñu sóor que sur le plan géostratégique et de l'économie stratégique que nan la ñuy def ba anticiper ci loolu soo amee un marché américain mhm. sur le plan de l'armement qui gagne deux cent milliards de dollars parce que Ukraine ak Russie ñu ngi xeex parce que ci àdduna bi créé nañ ay conflits yu bare pour jaay seen ay business. Amérique di suqaliku di am xaalis. Amérique bi ñu génnee diggu Niger seen xol yem fii parce que foofu ils controle l'Afrique. Mhm. ils sont au centre. foofu ils contrôlent le golfe de Guinée qui détient vingt quatre mille milliards de pétrole vingt quatre mille milliards de mètres cubes de pétrole ñun Sénégal ñu ne am nañu trois milliards de mètres cubes dinañu am nangam donc dana baax yaakaar bi foofu la ñu toll. américains yeeg tubaab yi xam ne lii nii nga xam ne mooy li ëpp doole ci àdduna bi di pétrole bi lu ci ëpp mu ngi ci diggante océan Atlantique bi Afrique de l'Ouest ak ce qui moo waral tension moo waral Sahel ñu naan terroriste tout cela il faut ñu jël en compte leeral ko ci boppu sénégalais yi ñu xam ne uh-huh. dans dix ans incha allah yàlla ñu fekkee tal dans quinze ans li ñuy foog ñun ak li ñuy bëgg mu am bu ñu anticiper wul ci ñooñu jël sunu indépendance parce que ñoom seen objectif bor bi ñu ñuy jox nii di ñu wax defee leen ko nii ak nii ñoom loolu bëgg na mu dakk xam nga xam nga koo xam ne tey bu ma ñëwee ne Sadikh lebal ma mais Sadikh xanaa su ma ko lebee une semaine dina jékki-jékki ne ma paasal nag sa leb yi bari na ah. mais ñoom du ñuy wax mukk seen leb yi bari na. dañ naa ma dooli la. ma jox la. ma jox la <laughs> bon naa la jox yombal la ko. naa la jox mais dugal ko fii. mais dugal ko fii tu n'es pas libre. et c'est ce que nous a retardé de Diouf à nos jours. moi léegi nag loolu nag loolu nag pour mu dakk mhm. ma gëm-gëm bopp. mooy foog ñun ñu jël affaire bi en endogène. un pays se construit dans l'endogène pas dans l'exogène. d'accord euh, Pape euh, keroog damay waxtaan ak euh, professeur Meissa Babou. mu ne waruñu précipité ci li nga xamante ne moo di wàññi dund bi mun nañ ko wàññi ci yeneen levier ndax dund gi comme ni ma ko waxee sànq léegi moo di moomuñu ko dañuy waxtaan ak ay nit pour ñu